ma jottali leen communiqué bi bàyyi ko ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu talaata fukki fan ak ñett ci weeru avril mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent test yi ñu def fanweer ñoo ci positif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 benn ci Gueule Tapée Médina Sicap Karak ak Sicap Foire Sicap Mbao ci région yi am nañ ci juróomi cas yu tëddee nii ñaar ci Kolda benn ci Matam Sédhiou ak Vélingara ñaar fukk ak juróom benn malade ñi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak ñeent malade ñoo nekk réanimation ñaari malaat ñàkk seen bakkan bu su altine altini fukki fan ak ñaar ci weeru avril ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk ba senegal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn wér nañ ci junni ak juróom-benn fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak malaat ñi nga xam ne ñu ngi leen toog ci biir kër yi ministère la santé et sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi vaccination biñ jagleel